waa construire Tivaouane durablement mooy nañu ànd tabax Tivaouane tabax boo xam ne ëllëg du màbb Tivaouane xëy na ci ci ci ci maanaa tabaxu na mais tey ci wàllu dëkkin ak dëkk tey dafa des lu bëree bëri alhamdulilah président Macky Sall mu ngi ci commencé jubbanti lu bëree bëri bëri ci taxawaay ak ci réalisation yi mais ñun aussi en tant que doomu Tivaouane waruñu toog bàyyi suñu dëkk xam nga ak ñooñu dëkk bu nekk ña fa nekk ñoo koy defar. donc c'est dans ce sens que ñun ñu jël prise de conscience bi ñu ko jëlee sax yàgg na mais tey ñu gën a jàpp ni tey war nañu gën a mën a jël suñu prise de conscience en tant que fils de Tivaouane en tant que talibé Tivaouane en tant que de des jeunes yoo xam ne lu ñu am yëpp Tivaouane moo ñu ko jox pour war a taxaw delloo ko njukkal. et alhamdulilah je le dis ici devant les caméras Dieu a fait que toutes les ressources humaines de Tivaouane de qualité en tout cas euh, Dieu a fait que nous avons d'excellentes relations toutes les générations Donc, je peux valablement servir de relais à, à la diaspora, à tous les cadres de Tchon, pour ensemble, en tout cas, porter. Euh, yàlla def na tey man ñi ma mag ci Tivaouane def nañ ma rek ñi nga xam ne maa leen mag def nañ ma aussi mag kon man Tivaouane mën naa wax ñëpp mën naa wax ak kilifa diina yi mën naa ma wax ak mouvement associatif yi mën naa wax ak étudiants yi mën naa wax ak travailleurs yi mën naa wax ak ndongo daara yi. mën na mën naa wax sportif parce que fenn fu ci nekk rek yàlla def na dugg naa ci yëngatu ji ba ña fa nekk jàppe nañ ma comme seen bopp loolu nag su amee mu am ay xale aussi seen biir ñoo toog xool ba ne ñun kat ay ndaw lañu mais dañuy war a contribuer ci développement Sénégal commencé ko ci suñu gox mais ñoom ñu def ñëw seet ma war na mat ci at ñu ma ñun daal yow la ñu bëgg tànn comme modèle yow la bëgg tànn comme leader comme leader ànd ak yow jàppale président Macky Sall ca Lamina Thiandoum bi nekk ci vraiment jiite ko ñu tuddee seen bopp cercle des fidèles soo gisee cercle des fidèles parce que dañu gis ni dafa am valeur yoo xam ci politique tey dafa commencé perdre nit ñi amatuñu gëm-gëm nit ñi dañuy dañuy dañuy daw pour des intérêts pour lu ñu ci mën a am ah ñu leen di xoymat di leen jox ay 1000 francs ki 2000 ak t-shirt ak ay kiloy ceeb ak kiloy yàpp loolu c'est pas respectable tey nit ñi dañ leen war a respecter parce que kuy dund coono yow boo amul loo ko jox tamit masawu ko mais di ko def loo xam ne da koy gën a dugal ci ndóol danga koy gën a delloo ginnaaw loolu la ñu bëgg a xeex ci politique te ñun mën nañ ko parce que bu ñu commencé y vingt ans de cela man dama jël ñaar fukki xale ak juróom té téeméeri xale ak ñaar juróom ma liggéey ñoom bi ma demee moom ba ba ma am ak ñoom fukki at ñëw ci téeméer fukk téeméer fukk yi am nañ seen master de ñoom ñëpp seen i papa daf ma ko joxoon ma yor leen nekk seen mag nekk seen sëñ daara di leen toppatoo ba macha allah ñoom ñëpp tey ay cadre lañu am na ci ay directeur de société y a trois ingénieurs ah, am na ci vraiment beaucoup beaucoup de cadres financiers ak yooyu donc liggéey boobu rek laa bëgg a laa bëgg a kiyaat parce que xale boo koy jàppale da koy jàppale ci jàngam kuy jàng ci jàngam ci formation ci yaram ci orientation kon tey ñun noonu la ñuy politiquer du ñu politique politique koo xam dañuy dajal nit ñi topp nit ñi di yangar yangar yi di daw wala di yaakaar ci kenn dara yàlla def nañu am nañu tuuti xam-xam xam nañ ñu am xam-xam bu bëri te ñooñu tamit pare nañu bu ñu leen woo ñoo jàppale xale yi donc ci dynamique boobu la bëgg bëgg nag ensuite li nga xam ni euh, programme yi nga xam ne état bi yëg teg na ko pour ndaw yi dinañ ko saytu benn par benn benn bu ci nekk ñoom li ci war a dugg si Tivaouane dinañ fexe ba xëcc ko ànd ko ñu ngi ko war a àndal pour waa Tivaouane aussi département bi yëpp lu ñu ci war a mën a am ak jigéen ñi ñu am ko ci. Mhm. Euh, waaw loolu jafe-jafe bu rëy la je crois que président Macky Sall war na ci wax parce que wax naa ko assemblée ñun mënuñu ni leen ministre Aly Ngouille Ndiaye laa ko wax man ko monsieur le ministre ñun mënuñu suñu xale yi yendoo football ci or ci mine d'or ci richesse ay milliards ca bu guddee du ñu lekk du ñu reer du ñu am lu ñu reeree ma ne ko loolu mënuñu ko cest à ko réglé wul ëllëg ci ay fitna rek lay jóg parce que xale yi mënuñu nekk fii bon Tivaouane foo foo foo suli macha allah la minerai la ñu gis usines yi ren xale yi juy koy feneen di ñëw di ci liggéey ñoom mënuñu ci am dara lu du ay poste gardien ak ay bale ak ay nettoyé ak affaire yooyu bu ñu waxee ñu ni xale yi amuñu formation mais kan moo leen war a état état bi moo leen war a jàngal moo leen war a former kon tey li ñu war a def gouvernement bi li mu war a def mi ngi def Tivaouane mais tey dafa war a indi structure de formation dafa def lycée professionnel wala mu def centre boo xam ne dinañ ci mën a liggéey sépar bii fu nekk du dara du dara wax naa ko ministre Talla nee naa ko centre bi dindi ko liggéey ko wala nga jëlee ko ci xolu dëkk bi parce que dama mel ñaaw na du former par année dix dix dix jeunes ca ay artisans lay non dépassé nous voulons des des modèles de formation qui de des boo xam ne day former xale yi ci ay technicien techniciens supérieurs ay ingénieurs pour ëllëg usines yi nga xam dañuy sampu fii ca soxla ay ay borom xam-xam mais sunu sunu doom yi sunu rakk yi mën a am xam-xam boobu ba ëllëg ñu mën a postuler wu mën a nekk ay ingénieur nekk ay directeur nekk ay cadre foofu donc loolu. taxawaay boo xam ne ñun dinañ ci bay suñu waaj mais dinañ ko wax wax naa ko président Macky Sall bi toogee ne ko Tivaouane il faut mu am jàppale xale yi ci ñu am koo xam ne école boo xam ne école de formation professionnelle la ah donc loolu incha allah dinañ delluwaat ci ministre bi duñu noppi duñu lott ci di ko di ko joytu bu ñu demee nag ba toll waxuñu ñu dinañ ut yeneen modèle yoo xam ne yeneen modu laaj yoo xam ne dinañ ko laaj te foofu bëgguñu fa egg parce que dinañ organiser jeunes yi ñu taxaw laaj seen i droit ah loolu nag comme ñun président la ñuy jàppale te président am na yéen ci Tivaouane ak waa Tivaouane ñoo ngi koy ñaan mu fexe ba Tivaouane am benn école de formation professionnelle bu mën a former xale yi ci métier yoo xam ne ëllëg dina leen def ay góor yu set wecc mouvement bi euh, liñ si jublu mooy jàppale Cheikh Tidiane Diouf ay jeunes lañu yu nekkoon dans le mouvement associatif doon si liggéey ay année ak i mais dañoo gis ni foofu dafa am ay limites. su ñu bëggee suñu yéene si Tivaouane daal di egg il va falloir ñu daal di dugg si champ politique bi te dugg si day laaj ñu am référence par rapport ak loolu nag si la ñu tànnee l'honorable député Cheikh Tidiane Diouf pour jàppale ko si liggéey bi nga xamante ne am na ko si mais aussi am na ko si président Macky Sall ba joxaat ko deuxième mandat jàppale ko aussi si programme am yi bu am yëpp waaw loolu am na Tivaouane gis nañ ni ndaw ñi amuñu formation euh, te damay faral di wax ni formation dafa baax ci doomu aadama formation da koy yóbbu fu sore sori ba tax na ci kaw loolu ñoo ngi woo le président Macky Sall bu daal di sant ay direction sant ay ministère am ñu jox ñu ay école de formation yoo xamante ni ñun en tant que ndaw dinañu ci dem daal di mën a dolli suñu capacité afin que ñu daal di dugg ci société yi nekk Tivaouane pour am loo xamante ni dinañ ko mënal suñu bopp mënal ko suñuy njaboot